ravi de vous retrouver amis fidèles internautes de Sénégo waaye it ñuy déglu di ñu seetaan ci li nga xamante mooy kawteef ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax di kontaan saa su nekk rek ànd bi ngeen ànd ak ñun si suñu différentes plateformes tey nag di bésum tabaski ñu ñëw nag ziar si ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy bégal di bégal ñi nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais yi waaye rek diaspora bi tey nag ñu ñëw doxantu si nag seet si fi nag ki nga xamante ne kenn dootu ko présenté fii si réewum Sénégal si li nga xamante ne mooy musique sénégalaise muy nuyoo si turu euh, Pape Diouf euh, tey nag moom damaa ñëw toog ak sama sama jaam da koy nangu rek ma daal di koy nuyu baal ko àq ah di la di ko di la baal àq bu baax donc à travers ma voix euh, toute l' de Sénégal ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax di la baal àq di la dalal jàmm fii si li nga xamante ne mooy suñu différentes plateformes. waaw jërëjëf soxna Mané donc xam naa ne moom tey moom xeex bi dina metti parce que xam nga ne moom yow yow da nga ñëw déjà sa kër buur léegi bëgg a ñëw changer kart gi mais amul problème baal naa la amul benn problème donc man aussi maa ngi lay nuyu di nuyu l'équipe euh, de Sénégo di leen di leen jox seen wàccuwaay euh, internetu Sénégo point com yi nekk si àdduna bi yëpp xam ne dañu safo Sénégo maa ngi leen di jaar di leen baalu àq te di leen baal àq di am mbégte lool tey dalal leen ci kër gi wax dëgg yàlla kontaan naa trop vraiment c'est un plaisir ñu toog ak moom ndax saa to soo toogee ak ki nga xamante ne mooy Pape Diouf njëriñ rek ngay jëlee si li nga xamante ne mooy waxtaanam tey tabaski mënuñoo dem fenn te moom duñ ko boole si ñi nga xamante ne ñoom la ñuy seeti ñuy ay ndaanaan yu mag euh, ñun ay xale yi nga xamante ne yàgg nañ ko suivre donc tey bisum tabaski nekk jouru julli ñëpp xam nañ dañ koy fête en famille donte gis nañ ay images yi nga xamante ne mi ngi circuler sur la toile depuis ce matin ak ni nga dundee sa tabaski mais bu buñ jàkkaarloo dañ lay laaj Pape Diouf dan lay jullee tabaski waaw xam nga nag euh, man moom euh, ñun ay doomu géwél lañu benn ñaareel ba euh, ay doomu boucher lañu suma ay maam ay boucher lañu woon suma papa nekkoon na boucher donc euh, parce que loolu sunu sunu sunu sunu cosaan la donc ku ne xam ne ne nag tabaski bés la boo xam ne bés bu am solo la bés bu màgg la bésu yërmande la li ci nekk bari na du xaj ci émission bi donc euh, sànq ba léegi nag moom sama fay sama kal yi fayeen yi ngomeen yi ñu ngi may sànni xeer fu ne xeer yaa ngi jóge daal fu ne ci réew mi non xar mi mbëkku ma parce que gis na ne daal man maa ngi lakk mais loolu c'est c'est normal aussi donc nekk ak sa famille non nekk ak sa famille nekk non nekk ak sa famille lakkal leen ñu lekk xéewal la xam nga dafa bés yoo xam ne bésu yërmande la donc il faut nga xaw muus tuuti def ay affaire servir doomu aadama yi xam nga donc mais depuis ñu gis ma tey may lakk xeer yi jóge na fu ne sa waay li nga li nga lakk toog na mën na leen mais c'est normal mais vraiment on l'a on l'a passé en famille may profité aussi di baalu ñëpp ak rawatina di ko jëkke samay dëkkandoo ñi ma dëkkal fii westu Foire muy ay nit yu baax ay dëkkandoo yu baax sama kër yaay ginnaaw raay ah donc àdduna bi Sénégal wërngal këpp ñi nekk ci diaspora bi Pape Diouf mi ngi leen di baalu ak te di leen baal ak di leen ñaanal xéewal jàmm sutura fàttewuma ñi nekk ci prison yi maa ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal ñi nekk ci hôpital yi maa ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal ñi fi jóge yàlla na leen yàlla xare aljana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi wax sànq lakku yàpp déjà dañoo gis ne kilifa yu bëri bu ñu nekkee seen i biir kër dañuy toog jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk si waañ bi ñoom kese ñoom bu ñu xasee ba ren di seen i xar ba fees pare nañ si du ñu jàppale jigéen ñi tey ji bu fekkente ne danga nga da nga ñëw eh, toog di lakk li nga xamante ne moom mooy yàpp te mënoon na la see bañ a fekk comme comme ñu koy xamee rek ñun si suñu culture eh, donc tey ji ni yow ban yëg-yëg nga am li nu boo ko defee waaw xam nga ñun eh, maanaam ñun ay Baay Faal lañu ñun li may wax rek ci xeer yu xonk yi lañ juddoo donc te xeer yu xonk yi boo ci juddoo euh, yooyu du nekk ay détails ci yow te je pense que ni kër moom euh, ñëpp ko war a bokk famille aussi complicité la donc même bu dul bés bu rëy nga war a toog ñu toppatoo la si suñu soxna daf ñuy toppatoo nu mu waree soxna si mi ngi ñuy toppatoo nu mu waree mais nag pour man mbégte la tu vois donc euh, il faut montrer un bon exemple parce que euh, voilà du chaque jour lay am donc euh, il faut montrer le bon exemple parce que am na ñu lay suivre artiste bi nitu public bi am na ñu lay topp am na ñu lay suivre foo dem dañ lay suivre dañ lay topp donc say geste day am solo ci ñoom say jëfin aussi day am solo ci ñoom donc loolu moo waral tey ma ne noo gars yi moom kenn du ma jiitu ma bàyyi leen rek ma créé débiteri bi waaw tey moom débiteri Pape Diouf laa fi teg quoi tey kàddu bi tëri Pape Diouf ñu ci bëri ñu ngi koy apprécier plutôt si li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi donc yaa ngi koy wax nit ki buy def da ngay wane bon exemple dangay jege li nga xamante ne moom mooy sa famille donc tey jii nii nga am loo xamante ni itam defoon nga ko askan wi gis ko kontaan si ah mooy les pas de danse yi nga xamante ne xaw ma fecc bi na nan nga ko <laughs> mu laa ci gën nga dekkilaat en tout cas nekk na geste boo xamante ne yaa ko wax léegi ci say biiru kàddu donc euh, geste yooyu ngay defal madame nga xamante ne ñëpp xam nañ sa complicité bi ngeen bi ngeen am yéen ñaar tey jii nii lu nu mel nan nan la la dikkee déjà nga tëb tëb rek di fecc ba affaire yi ba nga ko gisee ci réseaux sociaux yi nu mu la def. waaw mais dama kontaan parce que xam nga nee nañu derrière tout grand homme y une grande dame man suma jabar suma xarit la suma fans la daf may bëggee mën naa ne moom mooy suma première fans. Ah, voilà sama complice la et puis jàmbaar la donc euh, te dama gis ni que néegu sëy du rek jigéen moo war di tër bi yu jëkkëram saa su ne naam da koy def bu baax a baax a baax waaye nag góor da nga war a won sa galanterie sa jonge da nga ko war a won sa soxna da ko war a won ba ci sa copine bi nga xam ne da ngay génn ak moom parce que nag ah du ñu toog rek tooy xale jigéen yi di ñu jaay affaire mais ñu nit waaw mais ñu ni dañu am sunuy salañ salañ te sunuy salañ salañ te nag naa la xamal leen demaane ne gars yi bu ñu feccul ci biti ñu ngi fecc ci biir de lu leer laa la wax. <laughs> waaw mais c'était naturel dañu dañu toog dañu toog keroog ñuy seetaan télé. Mm-hmm. video bànneex génn. Mm-hmm. fi ma naan mbëggeelu tey man de neex na ma te xam nga gars yi dañ naan mbëggeelu tey mm-hmm. rek mënatuma tey sama bopp rek rek ma may ko mu laay cegin bi <laughs> waaw rek may ko mu laay cegin bi waaye moom nag keroog man maa ko gañe ndax dafa syncope. attaque deful contre deful contre attaque. est émotion la woon émotion bee bari woon doole. bëgg ngaa jël victoire bi man euh, moom nga waaw moom na bëri na fans. moom ma dem fenn ñu ne ma mais Pape Diouf man doo sama fans de mais man sa jabar mooy sama fans ndax li muy muuru. donc loolu aussi mbégte la donc vraiment muy lu rafet loo xamante ni lu ma rafetlu loo quoi vraiment. voilà ñu ñëw si son bànneex bi nga xamante ni moo waral fecc beeg ah coow lu bari rek ñun ñi di si kaf di si ree macha allah ñu si bëri nag am nga loo leen jàngal loolu moom damay sàcc wax la ko <laughs> donc single bi génn euh, mu cartonné gars yi di ko def challenge mu battre la record si euh, sur la toile ñu ñëw clip bi génn gën a rafetati gën a naayisati nit ñu gën a apprécier retour yi ñu ci am. waaw mais comme d'habitude rek kontaan xam nga man sama liggéey mooy euh, faire plaisir au Sénégalais donc bégal samay fans waaye bégal askan wi donc lépp lu may liggéey rek ci askan wi laa koy jëmale. ndax ñoom ñoo ma fi bàyyi tey lu ma doon askan wi la. musique lan may xaare ay woy yu neex musique bu neex donc moo tax saa su ne rek su ma duggee studio ba war a woy dama koy waaj waajaat ko donc te su ma woyee ba pare dama koy déglu dégluwaat ko ndax li may déglu lii ma woy ba war ko jox askan wi est-ce que askan wi dina leen neex donc alhamdulilah sant yàlla par rapport ak notre euh, petite expérience euh, vraiment yàlla mi ñuy defal sutura ba lépp lu ñu génne rek sénégalais yi ñoom ñoo koy jël kon noonu ñu koy jëlee nag yàlla nañu yàlla di defal sutura may ñu xel mu sell may ñu kàttan ba heure bu ñu waree génne rek fi ñu sene fi ñu ko yaakaaree sénégalais yi xaaree ñu fa foofu ngir li ñu leen di jox ñu mën ko consommer. d'accord kon loolu moo waral euh, Pape Diouf bu du toog de temps en temps di génn successivement li nga xamante ne mooy ay ay single wala ay son dangay da ngay togg ba mu ñor. mooy temps bi ngay jël pour génnee dara. waa sa dépend loolu aussi tolluwaay la man par exemple artiste laa boo xamante ni samay sorties presque du bari euh, je produit plus que samay sorties médiatique donc pour man am na ñoo xam ne sax d'accorduñ ci loolu parce que nee nañu musique dafay dox fi mu toll nii dafa ànd ak beaucoup de plateforme e que il faut ngay dugg ci plateforme yépp naa naam dëgg la dëgg la mais yooyu yëpp aussi c'est après c'est à c'est au fur et à mesure nga ciy adopté wu parce que man samay sorti daawul bari balaa may génn rek soit may préparer événement bu mag wala may préparer album wala may préparer tournée wala may préparer vidéo bu bees laay génn su ma ko defee ba pare nag damay toog sama coin di jouer topp sama promotion bàyyi nag sénégalais yi di consommer loolu parce que dañ daan wax naan beaucoup de promotion ça tue donc loolu aussi ci benn côté dañ ciy bàyyi xel mais nag léegi musique bi dafa am ay ay ay ay accessoires yu ndaw yu mu àndal gisoo léegi maa ngi nuyu sama frère Baara Baara no stress maa ngi koy gis ci euh, internet bi vraiment muy koo xam ne ku ma fonk la dama ko fonk respecté ko parce que euh, communication france franchement dama koy suivre mais nee na ma Pape Diouf euh, dama bëgg nga gën a jege xale yi donc wax boobu aussi bàyyi naa ko xel dinaa gën a jege xale yi incha allah